وخل لا اله الا الله ام صلى بصوب يلا جمانا ما سي جمانا مول ما دينا كا جوي لو بدي نك ييجي دي ني دي نكو فوتي ان لا اله الا الله جوجو يلا تنتل بوكم ني مؤمنين مؤمناتي مسلمين مسلماتي خانتين خانتاتي سائلين سائدات سائلين سائدات مترى الله جنا وساكرين الله كثير وساكرات تدكتو يلي يقول يا mu ne ndax alal am na fi ñu ne penku la ñu koy wute limaamu ne maa ngi ci sawu bi wax baat boobu alal dina leen fi fekk xam-xam dina leen fi fekk limaam moomu ne ba mu àndee laa ilaha illallah waxloo ko góor waxloo ko jigéen ba ñu koy wax nag fii ci sawu booba ñu fi daje woon yëri xam-xam nee nañu jigéen ji tudde yàlla day gaaf tinj jigéen ji jàpp julli day gaaf tinj limaamu ne. gën noonu ko limaamu